asalaamaaleykum yéen mbokki internet yi ñu seetaan ci Ngalam TV ñu ngi fii ci yëmbal Comico 4 fii nag dañ fi ñëw fekk fi lu doy waar moo fi am benn cantine lañ jorte si nañ ko taal mu nekk loo xam ne si ni lu doy waar la ñu ngi fekk nag ay mbooloo yoo xam ne si ñëw visiter li nga xam ne si ni moo xew fii waaye lu ci mënti am dinañ leen ko dégtal parce que ñu ngi fekk ki nga xam ne si ni moom moom cantine bi li ci kanam réwuti gët dañu daal di dugg rek daal di sëq ak moom laaj mu tontu ñi li nga xam ne si ni moo jot a xew fii ci Comico ay ca mbokki auditeurs yi ñu ngi fii ci yëmbal route de Boune commune Kokaat ñu ñëw fii rek ba si magasin bi nga xam ne dañu ko fekk ñu taal ko léegi nag ñu ngi fekk ñi nga xam si ñooy dëkkandoor kii moom magasin bi daal di teew ak soxna si soxna si nga euh, fekkee nga nga xam ne si ni moo xew fii ak lan nga ñu ci mën a wax. asalaamaaleykum fekk man fekkee naa ci ndax man bi ñu ma woowee wax ma ko damaa tëb daw ba fii ma bëgg a daanu ndax aw ma woon intention ne fii. kii dana fi def lu baax ak ni mu dëkkeek nit ñi dëkk bu rafet ba pare ñu wëlbati di taal lii même lii biñ koy taal kum ko fekkoon mm, nga jaay sa bakkan kum ko fekkoon rek danga jaay sa bakkan waaye nag dafa tàmbaliwut ci lii de ndax oto yi ca bunt këram foofu la njëkk jël ay paaka di ko jam ba nat ot panay oto bi yëpp yëpp yëpp ñu yeewu rek fekk oto bi ci suuf ñu jënd amaat oto frigo bu mag oto frigo bu mag boobu aussi ñuy fabaat paaka jamaat ca jama jama jama jama jama jam moom it ñu yeewu rek fekk pëna bi tëdd ah xam naa ne nag ki def lii ku ko xool bët la noon bu mu xamut la waaye yàlla na ko yàlla weer yàlla na ko yàlla weer yàlla na ko sëriñ Touba weer yàlla na ko xalifa Malick weer kull kull kull doomu aadama njaay ku def lii yàlla na nga waaxu ba fii nga ñëw waxal sa bopp ci darajay bi waaye metti na de lakk gii de lim ci lakk la nit mënulaa wax nu mu toll ndax matériel rek moo fi nekkoon yëre valeur rek ñoo fi nekkoon metti na ba ci kanamu yàlla man mi nga xam ne réew mu ne taxaw naa fa avion bu ne dugg naa ko mba xam matériel bi xam bagage yi am xam lii lépp yi jar ah metti na ba ci kanamu yàlla metti na metti na lool li mu lakkalee man na ay millions yi millions ay millions yi millions yi millions lakk na ndax ci suba si rek xëy na dem jëndi bagaas ci suba si rek xëy na dem jëli bagage yu bari ñëw sotti bagage yooyu lii dañ koo wekk lii dañ ko dañ ko cee ñam-ñamal lii ñu jug ko ci biir waaye lépp lakk bi ñu koy tibb di ko génne dañ koo tibb jug ko ci kër gii lañ ko jug ndax metti yi lal ay basang teg ca bagage yi ci mbedd bi ah metti na daal waaw ba léegi ñu ngi fii di ci témoignage yi ñu jàkkaarloog soxna si nekk tamit dëkkandoor ci nga xam si ni moom moom moom cantine bi soxna si ana ba nga jegee lu lu mel nag nan nan nga def nan nga ko dundee. metti ma torop wax dëgg yàlla sama sama place lañu ma fekk wax ma ko waaye dama jóg ñëw fii bi ma ñëwee wax dëgg yàlla metti na ma torop ndax Amy Thiam kenn yéenewu ko lii nit ku baax la nit ku dëkk ak ñun dëkk bu baax yéene ñëpp jàmm Amy Thiam boo xewlee moo ci gën loo ko wax dina ci taxaw. wax dëgg yàlla dafa dëkk ak ñu dëkk bu rafet lépp lu ñuy organiser moom moo ko yore di ko doxal ba mu baax te du la taxawu du la def dara loo soxla ci bagage am yi da ngay ñëw jël wax dëgg yàlla bu ñu ko yëgee metti nañu trop. mais lii ba muy am ban heure la am. man de ay 10 heures 11 laa ko yëg waaw. ay 10 heures 11 nga ko yëg ndax lii faral na faral na dafi am wala. ah man de maa ngi koy soog a gis wax yàlla xanaa këram gi daal ñu yàq ay otoom pono otoom yàq place am mais lii man maa ko fiy soog a gis wax dëgg yàlla metti na trop waaye xamu ko def. mais de ku soxor la wante nag dañ ko bàyyi yàlla yàlla miy feeñal daal nañ ko bàyyi moom dina ko feeñal incha allah ndax kenn yenewu ko am Amy am nit ku baax la digg yàlla. ñu ngi ci témoignage yi toog soxna si nga xam ne moom tamit dëkkandoo la ci nga ne si moom moom moom bi soxna si gannaaw ba nga yëgee lu ni mel ana na ban sentiment nga ci am. salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ni ko alhamdulilahi ala kulli xaal ñu ngi sant buur bi bu baax moom mi nga xam ne mooy dogal lépp lu ko neex. ci nattu bi nga xam ne moom la ñëw teg ko sunu mbokk mi euh, mu nekk ku baax nag nekk sunu parent dina boo xam ne nitu daara la di yaay daara di lépp ma sànq la ma woo rek wax ma ko ma bàyyi sama yitte yëpp ñëw nga xam ne kenn yéenewu ko lii euh, diini dong moo ko ñor ak li jëmale diini alalam boolewu ko kenn yàlla xam na ni ittey doomu aadama yi lay dox ittey nit ñi moom mooy itteem ay yërëm da lay jox nga sol heure bu la neexee nga ñëwaat jox ko ko mu nekk ku baax ku laabir ku yaatu moo tax lii bi nu ko yëgee ñun dañoo am soog am la ñu metti lool lool lool di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy leeral lépp lu nëbb yàlla na weer doomu aadama ji nga xam ne moom moo def lu ñaaw lii yàlla na ko yàlla weer. mais bi nga ba lii amee manque de sécurité la wala lu mu demee ah ni ko xam nga koñ bi am na police bu bees mais ki nga xam ni moom. Euh, tëñ na place am ba dem yaakaarul woon nii doomu aadama am na xol bu mel nii di ñëw di yàq mbiru yàlla la rek ndax bu dee sécurité nee nañ koñ bi am na police bu bees nii ngir rek mu gën a am sécurité mais noon bi nga xam ni moom wax dëgg yàlla mi ngi ci sa wet di la daasal saa su nekk mën nga toog si wetam sax te doo xam ni kan la xamoon ni sax mi ngi lay préparer kii wër na man dafa xaar ba nu puus rek ndax jour laylatu xadri ñëpp ngi dem ci di waajal laylatu xadri kon ñii ñëpp di waajal lu baax moom jéem a taw eh, jaamu yàlla ci weeru koor wu màgg wii mu ko defee sax loolu moom a gën a metti nga xam ne weeru njéggale weeru yërëmande jéem la ut lu koy jégal ak boroomam xanaa mu ñëw di def lu bon lii. kon ngi lay jaajëfal kon loolu ñun ñal na yàlla yàlla naa ko yàlla weer daal loolu rek la ñuy ñaan. kii moom nekk xale bu góor dëkk ci koñ bi moom tamit bokk na ci témoignage yi sëñ bi ana lan ngay wax ci lu nu mel. waaw xam nga su ma nuyoo ba pare parce que man suis suis bien placé pour wax li li xew ci quartier bi fii au niveau du Comico 4 parce que dañuy xam ne fii Comico 4 la parce que lii c'est pas la première fois c'est lakk bi moom moo indi ampleur bi mais man ñu fi dëkk fii insécurité moo fi am du question du ñuy du ñuy nëpp nëppal au niveau de la Comico 4 insécurité totale moo fi am man fi ma dëkk rek la fois passée tëm nañ sama biir kër sàcc sama écran plat te loolu yaagul ci période couvre bi récemment sama papa bi deux batteries lañ fa jël. Euh, kii sama sama kii nii dëkkandoo bi aussi tamit jàpp nañu ko deux ba man sama atelier mi ngi fii tout près gis nga magasin bi lépp li nga fiy gis man maa ko aménagé kon je suis bien placé pour wax li fi xew parce que ki def lii kii man du ma du ma man damay ne ñun on est en danger ñun quoi ñun am personne man waxuma maman bi ñun ñu dëkk ci quartier bi ñun ñu ngi ñu ngi en danger quoi parce que lii nii mooy firndeel ne actuellement nii euh, exemple ñu ngi am am nañ comi commissariat xam ne mi ngi fii tout près récemment mais la moindre des choses patrouille bu ñuy def war nañ ko mën a def ci quartier bi yëpp parce que aussi tamit ñun mënuñoo nekk fépp mais actuellement nii comme que ñeneen guddi war nañ doon nee nañu patrouiller dañu war a dugg ci cité bi yëpp di patrouiller parce que fii insécurité moo fi am du ay kii de lii du ay affaire effort de insécurité mais en parlant d' insécurité aussi tamit nit ki sa noonu ci insécurité boobu lay porox ndoolu def li mu bëgg def man ñëw naa fii période de sama atelier ñu dagg def fii li bàyyi lamp yi noonu dama ñëw estalawaat gérer ko ak yeneen ak yeneen yu fi xew en en en grosso modo ma bañ a guddal ñu xam ne au niveau de la Comico 4 amul sécurité récemment am na police mais amul sécurité. mais est-ce que njortoo ni ki def lii ku xam kii la quoi. non xam nga ki def lii c'est pas la première fois mu def ko xam nga nee naa la ñëw na ci kër gi sàcc fa ñaari batterie la fois passée mu ñëw kër gi la ne la fa batterie aussi ah mooy pa pa mooy euh, pa Diaw monsieur Diaw aussi tamit ñëw na foofu sàcc fa kooku bu ñëwee defaat lii kooku xam na localité bi te da nee naa la affaire affaire affaire sàcc yi loolu du fi lu bees. maanaam yàgg na fi kon ki ko def mi ci mi ci quartier bi ki ko def mu ci quartier bi te incha allah suñu borom dina ko nit. mais ban message ngay lancer aussi ñi nga xam ne ñoo di autorités yi quoi. autorités yi message bi may lancer moom mooy ñu xam ne euh, maanaam dëkk bu ñu nekk mooy mi Sénégal maanaam dañoo dañoo war a jàppalante quoi parce que boo gisee yenn détails yi di am yëpp am jot la parce que nit ki su su su ñàkkoon jot am na du taal ñëw fii naan day taalu ay ay taal ay ay place wala dugg ci ay yeneen ñun ñooñu nii dañoo sacrifié wu lépp ñëw fii di liggéey. moment bi nekk à côté ñu taal place man mi nga xam sama atelier mi ngi à man du ma tiit ah xam yooyu aussi tamit il faut état aussi mu veiller si mu xam ne euh, comico 4 euh, quartier bu bees la 2005 la malgré am na commissariat mais dafa am ay yoo xam ne ñu ngi si localité bi il temps ñu jóg même euh, kër ma maire bi nga xam ne moo jël yëmbal nord parce que fii mi ngi bokk ci yëmbal nord ñoom aussi war xam au niveau du comico 4 lan lan soxla la ñu ak lan bébét insécurité moom am na fi waaw te boo xoolee li nga xam ne mooy xew si dëkk bi temps yi maanaam yéen yi dafa siiw rek mais fii nii lu fi xew moo gën a garaaw waaw moo gën a garaaw waaw comme ça état bi daal mu bàyyi ñu xel mu jàppale si au niveau de la comico 4 quoi. waaw ba léegi nag ñu ngi ci li nga xam si moom moo di témoignage yi soxna si nee na moom dafa am lu mu ci bëgg a sànni soxna si yow gannaaw ba nga yëgee lii dañu daan gis bu njëkk ma place bu ñu dajji mais ñu gis place bu ñu taal ana lan yaakaar ni moo waral lu ni mel. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. di julli si yonent bi di sant sunu ñaari waajur di leen xamal na lii du sàcc yéen a ngi wax waxi sàcc mais lii du sàcc lii noonu mer caama la noonu mer bu ko topp jusqu'à bout du ko yàqal du ko tottiré du ko def lu ne mais maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla weer di ñaan yàlla képp ku ndeyam gërëm képp ku waajur gërëm nga bëgg koo toroxal yow yaay torox kër bu ma ko yëgee ba ñëw sama tànk ne ma lii du sàcc lii noonu bu bëgg a yàqal mer caama ndaxte sàcc na lay batterie borom këram bën na ay oto jëkkëram këram man sàccee batterie yi sunu kër gi ñu dendal moto lañ fa jël ki def loolu moo def lii te jógewul si quartier bi moo ngi si biir quartier bi yaa may dégg bu baax a baax may ñaan yàlla yàlla na ko yàlla weer yàlla na ko yàlla niit mais caama nag du am benn problème adduna xam nga lu du am benn problème àdduna dëkk bépp la am ak jàmm ak salaam dëkk bépp la bokk ak ndey ak baay alalam du ko bàyyee kenn Maître Thiam bëgg na doomu aadama yërëm na doomu aadama yëng na doomu adama képp ku lay yàqal képp ku lay sonal képp ku lay naqar ku la yéenewul jàmm yàlla moo am jàmm ku la yéenewul jàmm Maître Thiam yàlla moo am sa yaay gërëm na la sa baay ñaana na la sa borom kër waxi nopp sa goro da nga koo ba yóbbu ko Touba Maître Thiam yàlla na yàlla nit sa ki lay def lii yàlla na ko yàlla nit bëccëgu ndar kam wasalaam mais ñu gis ba tey ni li nga xam si ni moo di koñ bi peut-être guddi lañ def affaire bi mais dafa amul euh, éclairage public wala guddi lañ ko def kii def lii du ko def bëccëg ndax bu ko defee bëccëg dina weeru. mais dafa amul ay làmp wala. amul làmp làmp am na làmp sa gaa mais dama ne ñun war soxla nañ ay làmp soxla nañ gardien sécurité mais kii def lii man gëm naa ne bu amoon gardien sax ni na ko def gëm naa ne bu amee sécurité ni na ko def ndax dafa teg Maître Thiam bët dafa topp Maître Thiam waaye damay ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nit yàlla na ko yàlla weer. voilà soxna si it nekk tamit euh, dëkkandoo ci nga xam si ni moom moom moom cantine bi ñu taal fii ci euh, Comico 4 moom mu bëgg ci indi ay témoignages soxna si ana lan ngay dolli ci li nga xam si ni ñuy wax nañ ko ci euh, fee yi. waaw bisimilah rahmaani rahiim ba ma nuyoo ñëpp maa leen di sant di leen gërëm damay njëkk a sant Oumou Thiam ndax man mënu ma koo fay man sax duma ma dëkkandoom rakkam laa ndax lu ne la may defal fu muy dem ñooy ànd bañ na ko damay ba démb sant di leen gërëm ndax keroog ba ñëpp yuy amee ñëpp yuux ñëpp daw bi may menace fii ku nekk yaa génne lakk-lakk bi ñëpp a ci jàpp li may xamal daal tey ñaan yàlla mooy ki def lii ñëpp wax rek yàlla na ko yàlla weer ki yàq yàlla na ko yàlla taxawu ba ñëpp xam ne moom moo yàq ñëpp mën a set lii mu def nag rafetul ñaaw na ndax alal ju dul jeex moo nekk fii keroog ba mu mujjee jënd dafa jaar sama buntu kër woo ma ne tàllama loxo ne ma ñëwal oto baa ngi nii ma taxaw di ko xool muy wàcce bagage yi te valeur yu bëree bëri ay million moo nekk fii ay borodé ay lu ne moo fi ne comme nag kom yàq na te yàlla moo mën a weer yàlla na ko yàlla ak yonent bi weer ci barke Muhammad ummi nag yàlla ko yàlla may xol muñ te lii mu ñàkk yàlla na ko yàlla yokk lu ko raw li ma koy wax rek yàlla na ko yàlla yokk te may ko xol muñ te lii mu yàqule yàlla na ko yàlla firindil kii nag bàyyi nañ ko yàlla ñun koñ bi yëpp lii nag li wax rek suñu koñ bi amul amuñu sécurité xaw ma amuñu ko ndax xale yi am na heure boo xam sax dañuy ragal a génn fii la xale yu góor doon taxaw di ñu garder am nañ ci ay temps yoo xam ne fajar nit day xëy xale bu jigéen day xëy ñu jàpp ko xoj ko muy yuuxu ba sedd ñu ñu jël li mu moom daw bàyyi ko fi aw yàggul dara xale bu jigéen dañ ko simi ba simi boobeem yóbbaale ko taal kon mën nañu wax daal ne fii insécurité totale moom tiit nañu ñun ñun borom jaboot yi daal ak borom bagage tiit na nu loolu daal moom laa ci xam yàlla ñu ngi lay jàppale jërëjëf mbokk internet yi ñu ngi seetaan ñu ngi toog ak borom cantine bi nga xam si dañ koo taal fii ci Comico 4 bu nekk yëmbal jur de bun mu nekk nag loo xam ne lu doy waar la moom en tant que femme ñu taal cantine ñu koy bàyyi rek mu daal di nuyoo ñi nga xam si ñooy mbokk audi téléspectateurs yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. maa ngi nuyu ñëpp di leen jox seen yéeguwaay di ñaan sama nuyoo bi yàlla na fekk ku nekk ci jàmm ak salaam macha allah. waaw di wax rek ne lakk gi moom hmm, sama noon la de te def na ma ko nag def na ma ko lool lool lool lool liggéey naa ba wàcc le mercredi laa demoon jëndi bagage liggéey naa ba wàcc dem tëdd tëdd naa ba deux heures du matin am na sama dëkkandoo bu rakku jëkkëram doon xiyaam ci kaw étage bi moo gis tàkk-tàkk bi ñu woo ma téléphone mënuñu ma jot mu mujjee wàcc daw ñëw sama buntu kër fëgg sama doom yi yee ma ne ma yaay jugal ma jug ñëw fekk fii di lakk ci laa fëgg ki ma luye kër gi ma fëgg ko ne ko jugal parce que kër gaa ngi lakk te dina dugg euh, place baa ngi lakk dina dugg ci biir kër gi ci la ñu jug wóor yàlla ak yonent bi ne borom këram sax bi muy génn solul yére kër gi kenn solu fi yére bi ngay génn man mii di wax ak yéen ba may génn soluma yére xaw ma kan la nag xawma fan la ne waaye toogul ak conscience tranquille ndax maa ngi koy ñaan ci baaxu yàlla ak màgg yonent bi di ñaan ci sama liggéeyu ndey ak sama barke baay kii yàlla na ma ko yàlla wan ndax man liggéeyu lu ma kuddul yàlla ak yonent bi ak Cheikhul Khadim sëñ Fallou laa bëgg ci sama xol mu di ma wuyu fu ne nag may wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant nag sama borom kër bu baax a baax a baax moo tax affaire bi mettiwul ci man moo ma téye moo ma teeru moo ma jàppale moo ma defal jaw ndeen dama koy ñaanal yàlla na gudd fan te ku ne amin yàlla na nga gudd fan samay dëkk nag mënuma leen a fay mënuma leen a fay ndax kenn toogul kenn taxawul kenn nalawul mais à peu près mën nañ xam ñaata moo fi nekkoon. fii daal dañuy à peu près rek waaye fii li fi nekkoon ay millions yu millions la ay millions yu millions la ndax boutique bi sama biir kër la nekkoon ma dem ba boutique bi ndaw ci sama kër ma ñaan sama jëkkër ne ko damaa bëgg a génn mooy sama génn bii ndax musul nangu ma génn mooy sama génn bii ma génn mu ànd ci ak man nag soutenir ma nag. ba ma ubbi fii saa yu ñëwee fekk bagage yi gën a bari mu ne ma ah caam yaa ngi chargé rek de mujj gi ma daan ne duudu mu ne ma naam ma ne ko fii daal doyuma dara bunt bii daal doyuma dara dama ko ko wax ñaari fan ñu lakk fii dama ko ko wax ñaari fan rek ñu lakk fii may sant nag samay dëkkandoo bu baax a baax a baax a baax di sant sama mag jiitoog muy Aly di sant sama mag ji toog di Bakary Thiam ñu soutenir ma nag maak ñoom boobu ba léegi ñooy ànd di dem police ak ñëw maak ñoom boobu ba léegi ñooy dem di ñëw ñooy lijjanti ñooy def lépp di sant ba léegi rek samay dëkkandoo. Ah, ñu bëggoon a xam ba xam fii amoon na gardien wala amutoon gardien. amul woon gardien waaye gardien bii nekk fii ci ginnaaw mu ngi ci vidéo yi nee na gis na ñetti nit ñuy dugg ci biir cité bi. ñetti góor ñu dugg ci biir cité bi ñetti góor yooyu nag bu fekkee ne laale nañu ak lii yàlla na ma leen yàlla wan wan ko police ci barke Cheikhul Khadim police bi nag sant naa leen ndax ci guddi gi bi ñu ñëwee wax dëgg yàlla dalal nañ ma dalal nañ ma yërëm nañ ma déglu nañ ma attentivement àndaat ak man ak sama dëkkandoo bii lay laa ñoo ànd dem police bi ñu demee police ma def sama déposition bi may def sama déposition boobu mënuma sax téye sama yaram dañoo jug fi ñu nekk ñoom waa police ñoo fekk ma fi ma toog jël seen siège toog sama kanam di ma laaj ma di leen wax joxaat ma papier ne ma suba 9h na nga ñëw sama borom kër moo ma fa jiitu ma ànd ak sama mag ji Bakary ci am ñu dem bi ñu demee tamit fee bi ni mu demee rek la ñu wax laaj nañ ma ndax am naa suspect nee naa leen gisu xaw ma kan mooy kan laa war a jël pour suspect yàlla mii nga xamee ne nag moo yor caméra bi mu gën a wóor caméra yàlla na ma leen niital te niit na leen ba pare sax barke alxuraanu karim niit na leen te dinañ feeñ billaahi wallaahi barke cheikhul xadim dinañ feeñ dara nag mettiwu ma ci ndax lii maa ko liggéey lii liggéeyuma ma maa ko liggéey sama propre argent la lebu ma banque teggiwu ma natt def ko ci sama place bii sama jëkkër xam na ne sama xaalisu bopp laa ubbee boutique bii te loolu moo tax mu ànd ak conscience tranquille ndax tey mënoon nañoo ñëw fii banque di ko fayeku si wala ko ubbi magasin am ñëw fii di ko fayeku si te loolu yëpp amul kon alhamdulilahi rabbil alamin sant Ngoné Mar ak Ibrahima Thiam di leen sant bu baax yal na yàlla seral seeni yàq sant naa ñëpp nag góor jigéen mag ndaw ñëpp laa sant ñëpp ma jooyal macha allah ma bàyyi mais ñu gis ni tamit euh, ki def lii njortoo ni moo defoon moo bëndoon pëne yooyu sa sa borom kër ñëwaat fii est-ce que ne koy yéeg njortoo ni ku la topp la wala ku la xam la ak ci période bi nga xam si ni moom la ko defee xam nga kooku ndeyam liggéeyul kooku def loolu ndeyam liggéeyul man mi sama ndey liggéey damaa tëddoon di nelaw liggéey ba wàcc tëdd di nelaw kooku ndeyam liggéeyul kooku ndeyam ànd lañ ko jox kenn joxu ko doom bu dee moo def loolu moo def lii ah borom mbaar maa ngi nii. mais en tant que jigéen nag bi nga ñëwee fekk sa matériel di tàkk nga doon nab nabi ba taxawal dara ñëw fekk rek muy tàkk naka nga ko dundee. dama ne alhamdulilah rabil alamin ndax lii kat su jàkkaarloo woon ak man dana ma rey. bu jàkkaarloo woon ak sama doom dana ko rey te bu jotoon ci sama borom kër dina ko rey moo tax yàlla may ma courage maa ubbi buntu bii bunt bii bunt weñ la maa jël caabi ji xale yi naan bul ubbi bul ubbi ma ne leen damay ubbi ndax bu tàkk-tàkk bi génnee kër gi dafa am courant boutique bi amul courant mais kër gi dafa am courant te ay tout tànk fi nekk te xale boo ko yee day tërëf nii la nii laa ko dundee. mais euh, lépp dafa tàkk ba jeex walla am na lu des. Euh, damay ree sax bu ma koy wax xam nga lu tax jëlal ma sëriñ saaliw mii ak sëñ fàllu mee fii ñu nekk ci vitrine bi dara lakku fi barke alxuraanu karim fii mu nekk ci vitrine bi sëñ fàllu ak sëriñ saaliw ñoo ko tiim dara lakku fi man sëñ saaliw rek sëñ fàllu rek laa gëm te sëriñ saaliw de sama xaritu doom gannaaw ba nga ñëwee nag nee nga police ñëw na fi def nga li nga waroon def porté nga plainte yëpp def nga ko ana ban message na ngay lancé ci nga xam si ñoo autorité yi pour euh, sécurité gox bi. Euh, nañu nañu yokk sécurité bi rek ndax noppaluwuñu benn yoon daanañu patrouille mais dafa raw bi liy amee bi liy amee dafa raw xam nga kan lañu war a waxal mooy sunu maire moom la ñu war a waxal. mu taal làmp yi ci dëkk bi gis nga làmp yi ci dëkk bi làmp bi ci sama buntu kër man maa woo agent Senelec man jigéen maa woo agent Senelec ne ko dama bëgg nga defal ma fii làmp làmp bu mel nan laay jënd mu ne ma làmp tel ma ne ko am njëg ñaata la mu ne ma temps ma ne ko am jëndal ma làmp defal ma ko fii ndax dafa jege sama kër te samay doom dañuy génn samay doomi dëkkandoo dañuy génn di dem te fii lëndëm gi mu lëndëm ci terrain bi euh, dara wóoru ci ma jàppoo noonu jàppoo noonu jàppoo noonu ba Panjaay mii ñëw dëkk si jàppale ma ci ndey seen mii ñëw dëkk si di ma ci jàppale bu def làmp jotee dañuy cotiser woo agent neexal ko mu defaatal ñu làmp bi ci kaw ndax mënuñoo yéeg kon daal ki def lu ñaawul teef bi dafa utiliser lii di essence moom jéemul daal di sàcc mais dafa jublu rek taal ko rek yàqu ko. ah essence daal la utilise moom lañu gis ak i brin almet moom lañu gis de waaw ma yaakaar ne nag euh, euh, bu fekkoon dafa ñëw pour sàcc dafay ñëw dajji bu munul dajji dafay dem ba beneen yoon mu ñëwaat tantewaat noonu la sàcc di def mais noon noon buy jéem te mënul nu ne lay ñëwee man yaakaaroon naa ne nag man sama àdduna wallaahi yim ne aw ma noonu barke alxuraanu karim ndax bañ weex na lool mais derete ko lal léegi kàddu gu mujj gi lal kàddu gu mujj gi mooy sant yàlla rek sant yàlla rek damay sant yàlla bu wér a wér a wér wér maa ngi sant sunu borom bu baax a baax a baax ndax sama dëkkandoo yii sant naa leen sant naa sama boroom kër samay njëkke samay goro samay mbokk kenn desul man lu ma metti woon rek neex na ma lu ma naqari woon neex na ma sant bu baax a baax a baax Amérique état euh, fële itali Espagne Allemagne ñëppay woote ñëppay woote may sant yàlla rek nag di sant yàlla rek nag di sant yàlla rek nag di sant Cheikhul Khadim lii daal mooy sama wax ju mujj insécurité bi daal nañu waa meeri dimbali taalal ñu sunuy làmp na làmp yi tàkk ñun bañu ñoo wut sax gardien bu ñu wutee gardien mën nañ ko fay yàlla xañuñu ko yàlla miy maye xañ nañu ko te yàlla nañu ko yàlla di may ñu di ko yàlla nañu yàlla di may lu ñuy dimbalikoonte man sama buntu kër gee kenn du fa dugg soxla fa dara te yëkkatiwuma ko jox la ko barke alxuraanul karim su ma naree am dara te séddoowuma ko ak jullitu yàlla yi yàlla bu ma ko am yàlla bu ma ko am sama jëkkër dafa ma naan umi li ngay liggéey mais yow da koy joxe waat rek ma ne ko pas loolu sama nature la sama nature la ba moom dafa maa fekk si sax ci loolu macha allah kontaan naa trop ci yéen ci ñëpp laa kontaan waaw ma bàyyi la ak sama mag yi. ñoom waaw yow kilifa gi nga nekk mag ci kii gannaaw moom euh, fee yi ni mu demee nii yow lan nga mën a wax ci li li mu xam ne si moom doo jot na ko toftal ci lu nu mel. waaw mais alhamdulilah rabbil alamin gannaaw nu sant yàlla di julli sant bi ni ngi baalu àq ñëpp ci weer wu nu génn di baal àq ñépp waaw lii ko dal effectivement métti na noo dëkk c'est ma euh, lii bi mu ko sànceeg léegi bu ma tee deux semaines ca yem extrêmement brave c'est une dame model la. mais ci gàttal sanctions yi lañ war a tenir les sanctions doivent être sévères parce que c'est inadmissible une dame investir près de dix millions en moins d'une semaine mal intentionné ñëw lakk ko si ci biir weeru koor encore avant ça dafa pënn bënn euh, pën euh, pën bënn pën euh, oto jëkkëram au vu et au su de tout le monde nu xëy di jooy loolu def ay plainte yooyu intervalle deux semaines la ah mu mu installé boutique am nu ñëw def ko lii sont les sanctions sanction boo gisee nit ñi ñeme léegi rey beek yooyu yëpp yooyu dérapé mais c'est ça sanction yi moo oyof waxtaan wax dëgg ca la c'est du jamais bi parce que fu ñuy mujj mooy fayul suñ boppam ça je le dis en en haute bu réew mi jëlul ay mesures di sanctionner rey beeg viol beeg sàcc geeg yàq gi ci ci maa tey nu jàppale Tuyana pour deux ou trois mois de prison donc ça ne peut pas passer ça ne peut pas si les gens ne sanctionnent pas maintenant lu ñuy def jël suñu yett ak suñuy jaas yi fajal suñu bopp après laa nag xamun ku ku ku comment ku tooñ ku fayuloon xam loolu laa ci bëggoon a jàllale ko waaw kilifa gi yow nga nekk tamit mag ci ki nga xam si ni moom moom moom cantine bi ñu taal yan yan kàddu ngay sof rek ci li nga xam si jot nañ ko fay yëkkati. waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi rabil alamin wasalawaatu ala rasulillahi wa sahbi wa xayra rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani qawli ginnaaw bu ñu santee suñu borom bi julli si sayduna muhammadu rasulillahi salallahu taala alayhi wa sallam ñun ñoo ngi tudd Bakary Thiam di mag si Oumy Thiam bi mbir mi xewee quatre heures du matin woo nañ ma ma duggoon si douche bi ma génnee gis appel bi woowaat ko mu ne ma ah bitig bi dañu lakk te biti bi bi mu fi duggee deux semaines lépp si kër gi la nekkoon moo tax dañu ne ku génn rek feeñ boo nee pàng rek ñëpp gis la te ki nga xamante ni moo ko def ah duggulet ndax biñ ma nee un mois bënd na ruy mais dama ne kii daf la xam kii si sa famille bi la jëmoon mais nag bu gisee loo xamante ni dafa teew foofu lay commencé te bés bi mu ko def dafa gi yéeme bésu laylatu xadri man bi ma ñëwee dama ni ko dalal dañuy santaat suñu borom bi ndax amul moor doom matériel bi ñoo ko jënd mais nag kii yàlla nit na ko parce que dañu ne caméra de surveillance si kan la jógee si suñu borom ba ba tax na moom actuellement li fi xew yëpp li ñuy def na soo enqué na ko bés na ñëw mu génnewaat ko ki ko def gis nañ ko te incha allah dina fay kon njortees nañu daal lii rancune la daal. rancune la allah kulli leen parce que soxor la ñëw fekk fii euh, butéel bu am essence ak ay brin almet police jël ko yóbbu donc ki ko def euh, euh, il est bu doon sàcc la da koy daje te kii <laughs> yomb na daje parce que boo jëlee si métro boo ñëwee même bruit bi ñëpp nañ ko dégg mais di nga ko di ko dajji mais nag bu fekkee da nga ñëw nga jël porox ndoll bi tour essence essence day law boo taalee rek day dem. mais nag nañu ñaan yàlla rek euh, li nga xamante ni moo fi am yàlla sunu borom bi naxasaay ko ba ki nga xamante ni moo ko def bu dee ay commanditaire lañu tamit ñoom ñu feeñ ki ko def ñu weer ko bëtt ngi ndarakan li ngay sàkku moo di nga xam yoon na def liggéey yoon na ko def te di nga ko def parce que bi ñu demee police man ak moom si suba sa ah, dégg nañu li ñu wax man si guddi ga guddi lay latu xati bi génn naa dem bi may ñëw 4 di du matin ma gis eh, ay borom saret benn saret boo xamante ni six personnes ñu ngi si xam naa ak ils étaient mais man comme ñun ay soldats lañu yàlla dofal nañu 37 ans de service jàkkaar nañu rebelle ak ñëpp mais bi yàlla defee ba ma yoon bi ma doon bugg a jaar foofu la ñuy doon génnee te foofu dafa lëndëm mais mu mel ni dañ ma ne jàddal ba jàdd si talibe rek ñu ñëw mel ni luy ralenti bi ñu ñëwee jàdd ñu gis ñaari net di dox nii man may dox. mais ñu continuer beneen koñ bi rek ñu jàdd duggaat mais bi ñuy romb sama kanam niñ ko doon dawee dafa mel ni flèche dugg naa si koñ bi ñu jàddaan ne la fekk benn gendarme mu ngi taxaw si otom di bi ma ñëwee ma ne ko ñii na mu ne ma ay sàcc lañ donc moo tax insécurité bi am na police nag mi ngi def si liggéeyam parce que maa ngi gis ñuy patrouiller partout léegi léegi boo demoon bun fekk nañ fa ay moto yu bari ñu gaare ñu ngi leen di war a yóbbu police ba tax na ñun suñu wàllu bopp ñun tamit dañu war a def suñu sécurité bopp parce que ay soldaar lañu kenn gënuñu mën a sécurité ah fii mu nekk ne nag képp koo xamante ni jàppaat nañ ko fi dinañ ko nëq si malka yi parce que noonu lañ ko doon defee bi ñuy njëkk ñëw. léegi kàddu gu mujj gi lan waa kàddu gu mujj gi daal moom mooy euh, di ñaan ñi nga xamante ni ñooy def yëpp ci bon ñu bàyyi ko ndax euh, jëf ju bon demul dëkkul fi mu jë fi muy jëm mais fi mu jógee la dëkk parce que yàlla sunu borom bi nga xamante ni moo ñu sàkk. jël na jibril nit ki jël lu bon di ko yóbbu si doomu aadama buy dem bay egsi dafay wëndeelu taxaw di ko wëndeelu mu ne ma yegg mu ne ko déedéet bul yegg kii lan la def kii ba mu ko yóbbu dellul fi mu jógee mu ñëwaan nag ñëpp taxaw di wax ni kii dañ ko liggéey di ko yërëm fekk moo ko def nit ki lu mu def rek <laughs> moom la la yàlla di fay di ñaan yàlla nag yàlla du defal ñu taw féex biir bi biti euh, dëkkandoo ñii nga xamante ne ñoo fi nekk nag maa ngi leen di sant bu baax ndax kii sama rakk la ñun dañu ne mbokk bi la gën a jege mooy dëkkandoo ñun balaa ñuy si fekk dëkkandoo di fekk naa leen si suba sa bi ma ñëwee ku nekkaa ngi jooy soxna kii sama grand bi Aliou Ndiaye ñoo nekk noonu quartier moom mooy sama idole la moom lañu ñu jëlee exemple yu bëri parce que kosi lañ ko doon tuddee soldats yi may dégg nañ xam ni Kossy mooy kan mais yal nañu yàlla dolli sutura defal ñu taw fii biir biti ñu éclairer euh, dëkk bi rek jeex na ñun ñoo dàq ñu ñoo dàq si ñu ñoo dàq comico si comico yëpp ñoo dàq cité si cité yëpp yal nañu yàlla doolu sutura defal ñu tawfiq bi rabiti allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xaadimi subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun ba léegi ñu ngi toog ak soxna si nga xam si ni moom moo dëkk ci kër gi nga xam ne fi la cantine bi nekk soxna si yow naka nga yëgee lakk-lakk bi waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ñëpp ak ni ma yëgee lakk gi daal dama tëdd ba 2 heures du matin rek met caama fëgg ma sama fenêtre la fëgg ni ma antu jugal jugal baa ngi tàq te ci kër gi la jëm ma ni bëreet daal di jóg bi ma jógee tombeeg sama buntu kër borom kër moom tamit daal di jóg ma ne ko tijjil gaaw mu tijji maire bi ñëw tijji bi mu tijjee tàq-tàq bi doy na waar saxaar si naan bëx bëx xale góor yi sama rakku jëkkër yëpp ñu tijji robinet di sotti rek di sotti yàlla def affaire bi fay bi mu fayee ñu woo police police ñëw def kostaam kenn nelawul nag parce dañoo mujjee ñun sax dañoo tiit ñun ñi dëkk ci kër gi dañoo mujjee tiit parce que tàkk-tàkk bi demee woon na noo xamante ni sii ñun ñi fi dëkk sax dañoo tiit kenn xamul lu mu doon daal. yow naka nga ñu mën a wax relation maire bi nga xam ne si moom moom moom cantine bi ak waa koñ bi seen relation naka la demee. non relation bu noble la parce que man maire bi ci noob ci noble laa ko xam ba ma ñëwee soxla kër gi dafa ma koo jox. comprendre nga ni ma yow sama doom nga jox ma ko ci ci ci ci ci ci ci anam bu rafet nag sonalu ma ci dara nag wax dëgg yàlla sonalu ma ci dara kon bi affaire bi amee kenn yéenewu ko ba pare nag dafa defar place am macha allah même pas deux semaines ñu def ko nii mais li dafa ñaaw ma li may ñaan yàlla rek mooy na ko yàlla niit ndax ñun ci insécurité la ñuy dund fi leen suñu fiiti dalatul sax ñun ñu dëkk ci kër gi suñu fit dalul li ma bëgg daal mooy yàlla na ko suñu borom nit rek kenn yéenewu ko parce que dëkkut dëkkut ak ñun ci ci ci ranking boobu jàmm salaam lañ dëkk noblesse lañ dëkk macha allah comme ni ko ñëpp waxee rek laa koy waxee lu waaye soxla ne boo demee mu jox la ko kon nag lii kenn yéenewu ko ñu bëgg nag ki def lii yàlla ko suñu borom nit man lu rek laa bëgg parce que dañoo yor ay xale nekk ci kër gi ñun suñu fi daratul nga yor sa alal financé ko sa kër ba pare sa fit dalu loolu neexul fii bu 22h jotee doo génn parce que amuñu amuñu làmp làmp amu fi dara amu fi insécurité moo fiy dox kon nag na yoon def liggéeyam rek yàlla niital ñu ko man loolu rek laa am lu ma ciy wax. ayca ñu ngi yaat beneen témoin ba léegi moom mu nekk tamit dëkkandoo ci nga xam si ni moom moom moom bi yow yan kàddu ngay sos ci kàddu yi nga xam si jot nañ ko yëkkati fii. xanaa kàddu yi rafet rek bisimilahi rahmaani rahim auzu billahi mina seytaani rajim mi caam mii mun na wax si moom sax nit ku baax la man kër gii ma nekk tey jii kër gii man moom ñoo suñu miir yee def nii lu ma soxla ci këram gii suba ba ngoon dama koy am sama njaboot noonu kër gi ma nekk nii tey jii moom moo ma ko jox bitigam bii lu fi waay bugg lu fi waay ku fi dugg loo bugg mu jox la ko ma samba du xam ma demba du xam bu ñu amee xew te amuñu lu ñu fa yóbbu dañuy ñëw ci moom mu daggal ñu ay mbubb ah boole ko ànd ak ñun jox ñu xaalis nga dem faj nga dem defar sa xew ba mu baax ma samba du xam ma demba du xam tey jii suñu koñ bii ah ñu ngi góor góorgóorlu de ngi laaw yàlla moom moom mi moo tax moom mi tey jii sama njaboot xoolal lay def si ñoom te ma sax duma ko yëg billaay wallaahi nga yëgee ni taal nañu cantine bi lan nga yëg. man xam nga lan la gis nga euh, guddi gi ñu koy taal Gore Sane damaa tëdd sama sët bi mu ne ma yaay kaay wuy temps amee ma daal di ñëw mu ne ma yow dangaa gëj ci bitig bi ma ne ko yokkal màggee rek nga fiy tayle mu ne ma dama demoon wuti bagage Gore Sane ñu toog fii di waxtaan ma ne ko man maa ngi dem defar sama kafe gi fekk am na waa ju koy deseneel fii si biti man nag kii boobu rek man buñ ma nee dañ koo taal man mun ma fexe ba génn sama biir kër boog mun ma fexe ba génn pour ñëw fii ma ko xaw ma sax lendemain bi bu ma xëyee bu ma ñëwee fi bu ma duggee sama yaram yëpp a bañ sama rongo yi sotteeku damaa mujj génn si biti ba léegi nii ba ni ñu buubee bagaas yi yóbbu ba léegi mënu ma fexe ba dugg fii muy nit ku baax nag nee naa ko gis nga lii jaar jaar la rek yow yàlla du la seetaan parce que nag nit ku baax la nag wax dëgg yàlla jàppale ay dëkkandoom alalam du ko boole doomu aadama billaay wallaahi nee naa ko am am bu doon da ngay dem la sëq andi billaay leneen la ñuy wax léegi lan xanaa di sant yàlla rek sant yàlla rek tamit euh, après fii ñu defal ñu ay làmp gis nga làmp bii di di fi leeral nii si dig digal bii moom moo ko fi def keroog ba waa Sénégal ñëwee la ma ne damaa bëgg a monter fii làmp ma dindi 2000 jox ko mu dem kër Pa Ndiaye xam naa la si des moom moo koy monter parce que moom bëggul sonal kenn ñu daal di monter lampe lampe boobu sax moo tax fii boo génnee muy xaw a leer mais bu du woon lampe bi di tàkk bi mu defar fii fii day day lëndam sama doom bu góor bi sax xaw naa mag tuuti may léeg-léeg ma koy yónni bitig mu xamee daf ma naa yaay day yónnee heure fii boo génnee dafa lëndëm dafa wéer ñu defal ñu ay làmp ah wutal ñu sécurité yàlla baax na waa kay jërëjëf waay ñu ngi leen di sant bu baax.